walaan bikum Barthélemy Dias yaa ngi doxal de te fay wax sa baay Jean Paul Dias ne ko yaa ngi liggéey bu baax kàddu yi la njiit réew mi Macky Sall wax Barthélemy jaas ni ki démb Barthélemy Dias mel ni ku koy tontu na ko faa gërëm di la sant yow njiiti réew mi ak état bu senegaal ci li ngeen may jàppale taxaw ci wetu mairie bu Ndakaaru te mooy yéene kaay ak le quotidien ñoo ñu ko xamal te jeex a gudde njiiti réew mi Macky Sall fa dalal xalifa Sall Barthélemy am mel ni xay xarit yu namante woon gëj a gisante jàppante loxo ya tàppante mbagg ya xaqataay ya foo tollu di ko dégg tey mooy yéene kaay ne Macky kay ak Barthélémy xalifa Sall fa ñoo meloon ni mburoog soow léeg si ko yéene kaay na ko fa nga war a wax kay ci rek soow exclusif yéene kaay ne man dafaa gis ne mburoog soow mu rax Gloria la direct news na ko voilà léegi man faay laajte kan mooy Gloria bi diggante Khalifa Sall ak Karim Wade ndax yéen a ngi fàttaliku njiitiram Macky Sall fa waxoon ne mook Idrissa Seck poñse bu neex la mburoog soow waaye des na Gloria baa ngi ñëw ah Khalifa wala Karim Dakar Times ne xam nga man lu ma leen tuddee ataay ju am mant ndax mburoog soow weesu na le quotidien yéene kaay ne gisante waat moo am diggante Macky ak Khalifa te lii nag mooy firndeel ne dialogue ba moom tàmbali na Vox Populi dëggal ko na ko démb ca Grand Théâtre fa la njiit réew mi dalalee Khalifa Sall Barthélemy Diaz Soham Wardini Habib Sy Barthélemy gërëm fa njiit réew Macky waaye Macky tamit gërëm na ko fa rafetlu liggéeyam ba pare félicité ko turbine yéene a toll nii nitu système bi ñoom ñëpp benn lañ mooy Khalifa Sall Barthélemy Diaz Habib Sy fa mel ni rek réeroo gp yéen na man kay fay laajte nguur gi wala f ñan ñoo ci sincère daal laa xamut wal fajir yéen ne en tout cas ak Barthélemy Diaz lañ def démb ànd ak Macky di kontaan ak a bég fa mel daal door na ñoom beddi Ousmane Sonko indépendant yéen kaay na ko ah ah man faa foog ne ñoom ci seen bopp lañ nar a beddi ndax daj fitna jiñ leen teg yëpp lu ji njaaga makkay njaag tey ñu xëy xànd ak moom mel ni buroog soow ba tax yéene kaay bi na yeewi askan wi kay fi mu nii makki tasaaral na leen fa ñoo nar a xaajaloo de la dépêche yéene kaay na ko makki nag fi mu nii moo yor yëf te ma ngay doxal si du quotidien na moom kay li wax démb fa leer nee na dialogue bi mënta ñàkk te mi ngi oo maire ngir ñu dialogue moom jiit réew mi l'observateur na ko fi mu nii kay moom ma ngay a dénk sax dialogue bi ku farut fenn nag Mamadou Lamine Diallo tekki ne man tamit bokkuma ci ab dialogue te fay ñaawlu jaay doole gi njiit réew mi nekkee Mamadou Ibra Kane journaliste ITV njiital mouvement Demain c'est maintenant moom it nee na d'accordut ci dialogue bi wuy jiwut te fi mu nii bokk na ca waa F24 ma nga ca Sud Quotidien Mary Teuw Niane nekkoon fi ministre moom it nee na man d'accorduma te wuy jiwuma dialogue te faa bëgg ngeen xam nga xam nga ñan ñooy dem wuy ji sa dialogue a bii jamonoy calcul ci la Khalifa Sall nekk mook Ousmane Sonko Karim Wade waaye li wóor mooy ànd bi amoon diggante Khalifa Sall ak Ousmane Sonko moom intaha fini fa nar a yàqu ah Ousmane Sonko ki mu jàpp ne moo ko bëgg a rey ci wàllu politique tere ko bokk 2024 mooy njiit réew Macky Sall Khalifa dem na fekki ko bañ a ngay reetaan ak xaqataay source aane hée waaye daf leen dànk de Khalifa Sall fa teg ay charte ngir bokk ca dialogue ba bi ci njëkk mooy a lañ war a waxtaanee ca dialogue ba laneen lu mu waxtaanee moom njiitëram Macky Sall ca juróom benneelu édition lël bi àdduna bi jagleel wàllu économie sociale ak solidaire ma nga ca réew mi yéene kaay yéene kaay bi di lee seko di ñu xamal na xatteeb Ousmane Sonko ak Adji Sarr fi mu toll ni xeeñ na de presque léegi tey mu xam de ndax démbu daal chambre criminelle ba gars yi saisi nañ ko ba pare yónnee neen avis yi ci ñaari wàll yi le soleil yéene kaay moom di ñu xamal bon jooju ñuy wax kerem Congo xam nga na benn ni jàngoro ji waa kër docteur daan nañ ko maanaam faxe nañ ba wàllatut kenn indépendant yéene moom di ñu xamal ñu tëj ca kaso ga fa sàkk woon bàyyi négandiku xàttekat ba fa ko koo bañal ci jamono jooju nag yor yor yéen kaay mi ngi xamal ne ñi sàccoon xaalisu corona bi directeur général bu SCGI ba ko takk dégg dégloo nee leen dinaa fay maanaam delloo li ma jëloon rek te ma nga toll ci lu ëpp juróom-ñaar fukki junney million tange tànjaan tamit déglu nañ ko ba tey yéen kaay bi di xamal ne journaliste bi ñuy wax Seydina Omar Ba bu wal fajri waa ju ñuy nekkoon ca kaso ga 23 mai bii ci lay jàkkaarloog attekat ba ñuy jàkkaarloo ak seeni doom xale yu ndaw di am ay feebar AVC di ay waajur munuñ ca dara lu may jooy ak jàpp ci yàlla l'observateur moo ñu ko xëy xamal 130 xale yu AVC daanee ca hôpital Albert Royum jaaxle seen waajur yaa ngi ca keneen ku jaaxle ba def lu yéeme l'observateur moo ñu ko xamal yaaw seetal benn soxna daal fa xam jëkkër ñu dem ba sëy ba neexatut soxna si na ko fase ma jëkkër ja bañ mu ko waa baax na ngir jëkkëram fase ko xam ngeen nu soxna sa defam fa bàyyi téléphone am futa xay xawraam ba pare nag yónnee ko rakk jëkkër ji ku jigéen ak xaritam na leen lii yëpp nag faa bëgg mu fasama rek yëf yaa nga amee ca guddiri hmm, waa ma ne li nga def ëpp na de léegi su la fasee ban góor lay takk ëllëg nga defaat ko noonu waaye góor tamit bu la sa soxna waxee fase ma ful ak fayda mooy fa nga koy fase dem seeti keneen waaye naan du ko fase faa koy sonal ak du ma ko jëriñoo kenn du ko jëriñoo loolu du yëfu góor abonné leen ci suñu chaîne youtube ngir jot saa su yu wér te wóor aju ci réew mi